jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM 97.5 seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam euh, ñetti waxtu jàpp euh, ñeenti waxtu. Abdou Khadre Seck moo nekk ci micro bi du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu technique bi suñu mbokk auditeurs yi ak sunu mbokku auditrices yi ñoo ngi leen di nuyu dellu am mbégte ñëwaat fii indi leen seen émission pencum réew mi tey nag mbokk yi ñoo ngi invité. Euh, maire bu Kër Massar di euh, Moustapha Mbeng moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom ci ponk yu bare bare bari euh, Moustapha Mbeng rajo réew mi FM a ngi lay nuyu. waaw réew mi FM. maa ngi leen nuyu bu baax Abdou Khadre yow tamit maa ngi lay nuyu di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu tey ci rajo réew mi FM ci penc mi di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nekk bitim réew ñoom tamit di ñu déglu ci rajo bi jërëjëf. Euh, Moustapha Mbengue yow yaay euh, maire bu Kër Massar te xam nga mbirum coronavirus moom euh, Kër Massar bokk na ci gox yi nga xamante ni tey li ñu fay tudd coronavirus rawatina cas communautaire yi bari na dina la intéressé nga wax sa xalaat ci kàddu yi nga xamante ni ministre de l'intérieur yëkkati na ko démb Aly Ngouille ndax xam nga ne fan yi gis nañ ne jàngoro ji dafa mel ni dafa gën a tar ci réew mi même sax lu mën a gën a mën a wax sax ci àdduna bi. dafa am fu muy commencé waat léegi démb ministre de l'Intérieur dafa def conférence de wax ay mesures yu bees yoo xamante ni dañoo bëgg askan bi appliquer ko ndax keroog ci conseil des ministres bi président Macky Sall daf ko sant moom ak euh, ministre Sidiki ba ngir ñu wàccee seeni i ci mbedd mi ngir askan wi respecté li nga xam ne moom mooy takk masque ba pare bàyyi rassemblement yi takk masque tamit ci bërëbu jaayukaay yi marché yi ak ci euh, commerce bi tere tamit euh, plage yi euh, yow mesure yooyu ñu jëlaat lan moo ci sa xalaat. Euh, waaw mesure yooyu xam nga moo nekk mesure yi nga xam ne moom moo ñu mën a muccal ci feebar bi ndax boo xoolee depuis coronavirus dugg Sénégal ba léegi eh, bi ko ñi nga xam ne tey ñoom la yàlla may seen xam-xam nàcc ci ci santé bi ñu jàngatee feebar bi loolu la ñu wax ne moom moo mën a tax feebar bi reculer. mais nag boo gisee boobu ba léegi feebar bi reculé wul ça veut que li nga xam ne technicien santé yi ñu ngi koy wax population bi respecté wuñ ko donc loolu moo tax tey feebar bi ñuy wax ne dafa gën a yokk surtout si ñeenti gox muy Dakar Thiès. Euh, Diourbel Diourbel ak euh, ak Casamance. donc loolu nag dafa jot tey jii pour que nit ñi respecté loolu parce que bu dee ne nit ñi force mooy mën a tax ñu respecté loolu dafay jaadu président. saisir le ministre de l'intérieur ak le ministre des forces armées pour que ñu fexe ba nit ñi respecter loolu ci par la force parce que suñ ko respecté wul mooy jàngoro bi day gën a yokk te tant que jàngoro bi mi ngi gën a yokk jàngoro bi du fi jeex te jàngoro bi bu fi jeexul conséquences yi muy def ci réew mi dafa bari mais conséquences yi muy def encore ci ci ci askan bi tamit dafa bari parce que boo xoolee eh, nombre de morts yi mi ngi gën a mi ngi gën a yokk soo xoolee tey dajaloo yi si bëri tey ci espace yi nga xam ne tere nañ ko xale yi ñoo fay ëpp lu ñuy dajaloo ndax boo xoolee xale yi ñoom ñooy dem ci terrain football yi di football xale yi ñooy dem ci plage yi ñooy dem fu nekk mais xale yooyu tey ñoom dañuy am jàngoro ji mais jàngoro ji xëy na mënu leen sonal mais ñoo koy yóbbu seen kër wàllu ko seen papa yi wàllu ko seen nijaay yi seen maam yi ñooñu di ci loru boo xoolee ñi ciy feebar eh, ñi ciy loru di di di génn àdduna ci mag ñi dafa bari mais ci xale yi ñuy feebar bi di jàpp bari na mais duñ ci loru kon ce qui veut que ñoom ñoo koy wàll mag ñi ñuy loru kon donc mesures yooyu suñ ko jëlee ñun en tant que ay élus locaux liñ ci mën mooy euh, ñun teg nañ suñuy comité de crise euh, di waxtaan ak askan bi di leen sensibiliser ndax ñun sensibilisation bi la ñu mën ak di leen jàppale jàppale bi maanaam ci lépp loo xam ne dalay aar ci feebar bi su dee ne ay détergent la su dee ne ay masque la su dee ne ay lave-mains la lu mën a doon ñun ñu ngi koy wut di ko tasaare ci askan bi ba pare tamit nag di leen yor suñu làmmiñ di leen sensibiliser. d'accord hmm. léegi euh, monsieur le maire dinañ ñëw ci ci loolu mais ñu bari dañuy wax ne euh, gouvernement bu Sénégal ni nga xam ne moom la ñuy xeexee mbas mi euh, dañu si lajj ndax. bi nga xamante ni tey ñoo ngi ñoo ngi tëj école yi di tëj euh, nit ñi di def euh, couvre-feu ak état d'urgence boobu jàngoro ji bëriwul Sénégal ñu dem ba nga xamante ni jàngoro ji law na Sénégal moom njiitu réew mi wax ne euh, mënuñu ñàkk ubbi économie bi ndax économie bi ma ngi nërmeelu économie bi bu deeyee mënuñoo xeex mbas mi wax ne nañu dund ak virus bi. Ah. mais bi mu waxee nañ dund ak virus bi. Ah. yow en tant que monsieur le maire war nga xam nga ne depuis boobu ba léegi. ci la bàyyeeko gi gën a tar est-ce que du état bi moom moo lajj ci communication bi walla yow lan moo ci sa xalaat. non état bi sax mun euh, mënuñu wax ne état bi dafa lajj parce que xam nga jàngoro suy doog a dugg ci yow te maîtrise doo ko am maîtrise bi nga ci bi 100 pour cent doo ko am ndax corona bi dañ ko doon dégg rek maîtriser wuñ ko mais bi ñuy ñëwee tey ba ci biir ba ñu maîtriser ko tuuti xam jàngoro bi lan moo koy def ak lan nañ koy moytoo et tout ça. léegi nag dafa dafa jot nit ñi jël seeni responsabilité mais tamit état bi li mu def loolu la war a def parce que euh, économie bi suñ ko bàyyiwee mu dee nit ñi kon waxuma la coronavirus moo leen rey mais xiif moo leen di rey donc il fallait que kon ñu vivre avec le virus mais vivre avec le virus day day ànd ak responsabilité ci kenn ku nekk maanaam ñu ñu am discipline d'abord discipline bi mooy ñu respecter li nga xam ne ay mesures la yoo xam ne état du koy jël bu état jëlee mesure ñu respecté ko bu agent de santé yi jëlee mesure ñu respecté ko parce que man je pense que waruñu woon dem sax ba egg si président tey di instruire Aly Ngouille Ndiaye ak le ministère des forces pour nit ñi wàcc euh, homme de tenue yi wàcc ci mbedd mi pour nit ñi mën a respecter mesures yi parce que dafay mel ni ne yow Euh, tey mm, sa sa sa sa sa bopp ma la gënal ah, xam nga olof am na nu mu koy waxee du du bañ naa la léegi day dem ba yow nit ki yow sa sa bopp sax moo ko gënal yow parce que tey yow sa wér-gu-yaram bu demee ba nit ki di la teg lu métti pour nga am wér-gu-yaram te yow nga waroon a bëggal sa bopp sa wér-gu-yaram yow moytul sa bopp loo loo lu lay indil mm, lu lay nasaxal sa wér-gu-yaram mais dem ba nit ki di la ko forcer pour def loolu boobaa nag beneen affaire la dañu war a seetaat suñu bopp moo tax man li may lancé rek mooy ñun sénégalais yi ñun ñoo war a xoolaat suñu taxawaay nañu jéem a seetaat suñu taxawaay ñu jéem a euh, respecté li nga xam ne ñu ñu koy sant pour feebar bi mën fi gaaw a jóge ndax feebar bi bu fi gaawut a jóge rek toujours ay problème rek lay andi ci réew mi. d'accord hmm. mais euh, monsieur le maire euh, mbeng Mbengue tey coronavirus ñu bari dañuy wax ne feebar la boo xamante ni tey. Euh, ñi nekk ci euh, ci communes yi ci gox-goxaan yi euh, maanaam ci askan bi pour ñoom ñu xeex ko dafay yomb mais yéen maire yi est-ce que ni ñu leen waroon a impliqué ci xeex bi jox leen ay moyen ndax yéen maire yi maanaam état bi mel na lu leen jàppale mais jàppalewu leen entre guillemets mais yéen implication bi tey bu ñu leen si impliqué woon. maire bi am na ay bàjjenu gox am na ay ASC e yoo xam ne maire bi yàgg na leen jàppale am na ay daayira yoo xamante ni maire bi yàgg na leen jàppale am na ay notable yu nekk ci koñ bi xamante na ñoom maire am na ay imaam ñu fa nekk mais yéen bu ñu leen ci impliqué woon jox leen ay moyens ngeen boole si ñii ñëpp ma leen wax maire bu nekk def ko est-ce que du loo xamante ni solution la. waaw xam nga loolu loolu mooy li nga xam ne moo nekk sax parce que xam nga maire moom. mooy ki nga xam ne moo nekk ci base bi moo nekk en proximité ak population bi moo xam population bi moo xam commune bi donc kooku amul lenn luñ mën a def ci biir population bi bëgg ko mu écarter ko ci ba pare di ci am réussite mënul nekk donc état bi xëy na écarté wuñu ci gestion pandémie bi mais xëy na euh, jàppale bi mu war a def mairie yi ci wàllu euh, finance mm-hmm. jàppale boobu amul ndax tey mairie yi ñoom ñooy démerdé mm-hmm. ndax la début bi pandémie di doog a am commerce yu bëri dañ ko tëj am na ba fii may wax ak yow na mairie yoo xam ne ba tey defuñu seen patente donc am na recette yu bëri yoo xam ne mairie yi ñàkk nañ ko ba pare te teewul mairie yi taxawu nañ taxaw bi ñu war a taxaw pour jàppale seen structure de santé parce que lu mel ni man bi pandémie bi ñëwee rek dama génne 10 millions laa njëkk a génne jëndee ko ay médicaments jox ko le chef du district mu seddale ko poste de santé yi ma am man am naa juróom-ñaari poste de santé ak ñetti case de santé ak district bi. Mhm. bi ñu demee ba ci biir bi ñu amee suñuy première cas docteur bi gisaat ne cas yi ñuy dem di jëli ci kër yi dafa am matériel yi nuy war a yore pour mën di jëli ñi nga xam dañu am corona pour protéger euh, agent de santé yi. Mhm. donc mu defaraat ma benn facture bu ñëwaat ci 7 millions. Mhm. ñu jëlaat 7 euh, euh, millions yooyu encore. jëndaat euh, euh, déggal 10 euh, million ñu jëlaat 10 millions yooyu jëndaat matériel boobu jàppale ko. ci xaalisu mairie bi xaalisu mairie bi. mais loolu nan la mën a nekkee monsieur le maire. waaw bien sûr nekk na parce que c'est de l'argent boo xam ne mu ngi fa. waaw non non non li ma bëgg a wax mooy. Mhm. ñooñu dañuy dem di jëli ji ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee coronavirus. te état bu Sénégal dafa génne ay milliards jox ko ministère de la santé pour ñi nga xamante ni tey. ñooy taxawu ñi amee coronavirus. mais lan moo tax yéen mu nekk seen. léegi nag foofu laa bëgg ñëw xam nga tey affaire état xam nga ñun dañoo nekk ci base bi dama la bëgg a wan wan exemple rek ne la ñun ñu nekk ci base bi ñun lañ war a jàppale. mais li nga wax nii li nga war a def li wax moo nga def nii loolu liggéeyu ministère bi la. liggéeyu ministère bi la mais ñun duñ xaar ministère bi xam nga tey bu dee ne ministère bi dafa yéex état. ay mbiram léeg-léeg dafay dafay xaw a yéex mais bu yéexee ñun ñu nekk ci base bi ñun suñu population wér duñ ci xaar njaga duñ ci xaar paate suñu gisee ne lii moom moo war mën nañ ko def te il ñu def ko pour suñu population wér duñu xaar. mais doole bi ñu même bu ñu amul doole bi tamit ñu jéem lépp sax dinañ ko def di def ci biir ngir lan. ngir suñu population am wér gu yaram. donc boo xoolee matériel boobu bi ñu ko réglé ñu laajaat ñu ay détergent jëndaan nañ 7 million détergents muy vingt 27 millions yoo xam ne tey mairie bi génnee na ko ci ay matériel ak ci ay détergents pour jàppale ko suñu structure de santé yi donc loolu def nañ ko ce ba diir dire du duñu yem foofu parce que gis nga bi bi école yi di tijji li ñu jënd ci ay lave-mains ak bi nga xamee ne ñu ngi tijji euh, mosquée yi ñu jënd ay lave-mains ay détergents yóbbul leen foofu donc école bi muy tijji rek presque génne nañu ñun cinquante millions boo xam ne ci école yi pompage pompage école yëpp def nañ ko école yëpp jox nañ leen ay thermoflash école yëpp jox nañ leen ay lave-mains école yëpp jox nañ leen ay détergent donc loolu coûté nañu 50 millions mais même si aide alimentaire bi sax aussi c'est la même chose état bi joxe na mais xam nga li ma joxe mënul doy surtout ñun commune bu mel ni Kër Massar état bi suñu joxee 140 mille 130 euh, ménages te ñun xam nga la ñu yor ci ménage kenn mënu ko compter Kër Massar 140 ci euh, mhm. donc loolu euh, beneen affaire la donc ñun dañoo mujj jël ci suñu budget une valeur de 88 millions lañ jël parce que defoon nañ benn virement ci temps pour dimbale nit ñi ci aide alimentaire ñu def cent un million cinq cent mais jël nañ 88 million dem jënd ay denrées alimentaire pour jàppale ñun tamit askan bi nga xam ne ñoom tamit dañuy yelloo jàppal jàppale donc loolu jot nañ ko def ci xeex bi ce qui veut dire que kon donc munuñu xeex dara si base bi. sans mairie mais aussi nag jàppale bi nga xam ne état war na ko jàppale mairie bi tamit aussi loolu dafa des état dafa war a jàppale mairie parce que bu ñu voté budget ne 1000 milliards yi pour xeex Covid bi moo ko tax a jóg bu ñu la xeex Covid moo ko tax a jóg. mairie yi nekk à la base di xeex Covid bi mairie yi war nañ leen yëkkati benn montant jàppale leen ko pour ñu mën a gën a taxaw si xeex boobu. d'accord jërëjëf euh, monsieur le maire euh, Moustapha Mbengue invité naa benn maire euh, lii nga wax nii moom la wax que ne ñoom état bu Sénégal taxaw gi nga xamante ni moom la nguur gi war a taxawu maire yi. dafa des Sénégal nag état bi mënul xeex coronavirus tant que impliqué wu si. maire yi te impliqué si maire yi nag. Euh, du ci ay wax kese ndax yow léegi nag yow xaalis bii nga def ci sa ci xeex bi programme la boo xamante ni bu mairie bi amoon la bàyyi programme boobu noonu léegi nag loolu kañ ko ko xalaata dabu ci ah, loolu yàlla rek moo xam parce que maire yëpp moom na la leer na na la leer na ay déficit lay doon rek ay bor yooyu gàddu rek lay doon <laughs> en attendant parce que comme yow amoo ba pare te yaa ngi génnee di def wala yaa ngi leb di def bor bi mi ngi sa loos nga gàddu te feebar bi xanaa xamaguñ kañ lay jeex. d'accord léegi euh, euh, Moustapha Mbengue euh, coronavirus bi ndax dinañ ñëw ndax Kër Massar dafa nekk foo xam ne askan ba fa yeewoo dafa bari bi coronavirus bi commencé yow sow tur Kër Massar bëri woon na ci presse bi. marchand ambulant yi fay jaay commerçant yi. léegi yow ban taxawaay ngay taxaw instant bii. si mesure yees yi. ba ñu dëkk Kër Massar. respecté ko rawatina ñi nekk ci marché yi. ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbirum transport dem bi ak dikk bi. Mm. c'est que xam nga Kër Massar euh, il faut ñu coow ko ndax xam nga rëyaay bi. ak bëriwaayu nit bi. moo tax ñu koy coow surtout sax ci rond-point bi station Shell bi nga xam ne tey jii foofu mën naa wax ne tali bi jógee bi jëm dakaar fa la ñëw route des Niayes bi fa la ñëw yi jëm ay Malika ki yëmbal ak yooyu. Eh, ñi jëm tamit aussi ay Lagrose ak i Tivaouane Peul ak ñooñu ak ñi jëm Jaxaay Rufisque Ouest et cetera ñeenti route yu daje la la fay daje si doomu aadama bari moo taxoon coow li bari mais ñun en tant que maire de la commune ñun bi feebar bi amee comprendre nañ loolu moo tax dañu teel a jóg def suñu benn comité de crise teg ko comité de crise boobu épargné wul kenn benn couche population Kër Massar épargné wu ko. bu dee transport bi ngay wax xam nañ ne foofu day am problème góor xuma la ñu xëcc ñoo dugal ci biir bu dee commerce bi noonu lañ def euh, seen président bi jonn lañ jël dugal ci biir bu dee sécurité bi dañoo jël le commandant gendarmerie serve commandant service di d'hygiène président des imams président des délégués de quartier président des ASC bàjjanu gox maanaam bàyyiwuñ ba ci étudiants yi ñu ngi ci biir ak nag de mouvement yoo xam ne ñoom dañuy liggéey reel seen seen seen gox ñu teg comité de crise loolu moo ñu dimbale nga nga xam ne lépp loo xam ne bëgg nañ mu egg fa war a egg rek dafay egg parce que su comité de crise bi toogee ñu def benn sensibilisation ci mm, mesures yi nga xam ne moom la commerçant yi war a doxal wala moom la transport war a doxal wala ñeneen ñooñu bu ñu demee rek dañuy woote seen kuréel rek lancer foofu mbir mi rek ñoom commencé ko doxal moo tax lu ñu bëri bëri bëri population la nit ñi bëri bëri bëri dangay xool secteur bu nekk day am une organisation. loolu sax dem na ba ci biir boo xoolee eh, am na émission yu bëri yu may def gars dañ may laaj na ma pour pourquoi Kër Massar eh, ni mu ëppee nit tey bu ñuy xool district yi ci région de Dakar yi ëpp corona quoi district Kër Massar gën ci néew le te pourtant moo ci waroon ëppale. su dee na ci logique rek. Mm-hmm. mais xëy na organisation bi ñu def. Eh, kenn ku si nekk eh, dugal ci loxoom di ci di ci xeex ci ñii ma la limal ñëpp ku si ne di ci taxaw imaam ba buy xutba taxaw ci eh, délégué de quartier bu demee quartier taxaw ci étudiant ba noonu keneen noonu xëy na taxawaay boobu ñu taxaw. xëy na loolu moo ñu si dimbale ba corona bi nam ci waroon a mel. demeewul noonu. donc loolu la ñuy continuer rek comme ci mesure yu bees yi. mais ndax yomboon na surtout commerçant yi. waaw yombul ndax xam nga commerçant yi ñoom seen bureau mën nga waxtaan ak ñoom ba ngeen d'accord. mais bureau ba bu ñu demee ba ca commerçant ya foofu mën na nekk problème parce que des fois li ñuy waxtaan ak bureau yëpp du tee commerçant yi dañuy marche da gis léeg la ñu marche ñëw ba ca mairie ba ñëw foofu kaas a kaas wax seeni droit nangam nangam mais du tee ñun ñu dalal leen wax ak ñoom xamal leen ne jaay euh, baax na mais nga jaay te dund moo gën nga jaay tamit te dee donc yooyu yëpp il faut nit ñi nga leen di sensibiliser di leen yee di leen andi pour que ñuy mën a coopérer ci li nga xam ne loolu nga bëgg. waaw instant bii Euh, xam nga ñoo ngi tere rassemblement. te euh, rond kër Kër Massar dafay faral di bëri nit. ñi taxaw fa si maquette beeg mm-hmm. yooyu ni jaay. Mm-hmm. instant bi mm-hmm. monsieur le maire démb. ci àjjuma ji la Aliou Ndiaye def déclaration boobu tere rassemblement yi. te xam nga ne li ñu gis Kër Massar loolu rassemblement la. léegi yow ban taxawaay nga si am fi mu ne nii. non ñun xam nga taxawaay bi ñu ciy am rek mooy man euh, dès lundi ma woowaat sama commité de crise ñu waxtaanaat ci mesures yu bees yi nga xam ne moom la Aliou Ndiaye teg pour que kenn ku nekk nga dem ci waa pàcc bi nga bokk nga woote nga sensibiliser nit ñi ñun sensibiliser lañu man mais maintenant quant à faire respecter les mesures maintenant loolu nag c'est état donc euh, tey jii non du ñu tëj marché mais on organise les marchés ba nga xam ne dugg bi ak genn bi ak contrôle bi masque yi yooyu yëpp gars yi nañu ko respecté mais daf ci am ñoo xam ne du ñu respecté mukk yoon ñooñu nag yoon mooy jël matuwaayam tey lu mel ni rond point de Kër Massar foofu tey yoon moo mën a jël ay responsabilités am teg fa ay gendarme defoon na ko teg fa ay gendarme wala mu teg fa ay policier yoo xam ne dinañ mën a suivre nit ñi pour que ñu respecter mesures yooyu parce que plus de cent mille personnes fu ñuy jaar wala di fa dajaloo foofu du ay agent mairie ñam ñoo fa mën a seme ordre loolu du mën a nekk donc loolu nag état bi lañ ciy lancé mu jël ay responsabilités par rapport ak Kër Massar sur les mesures pour que nit ñi ñu mën ko respecter surtout au niveau du rond-point. d'accord jërëjëf euh, monsieur le maire euh, Moustapha Mbeng mbokk yi moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM mu yam samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp euh, ñeenti waxtu monsieur le maire fan yi jàll am na ay ñoo xam ne dañu leen joxar bi baaraamu ne ay marchand ambulant lañ ñëwoon foofu ca mairie ba euh, yàqate foofu noonu taal fa euh, ndax mën nga ñu si jox ay explication nga leeral askan wi déglu euh, nan la demee. waa xam nga loolu moom eh, xam nga toujours ci cadre Covid 19 bi la rek ci mesure feebar bi parce que xam nga feebar bi moom bi mu amee ba léegi chaque jour yaa ngi dégg rek nit ñaa ngi jël ay mesures ñun nag suñu rond point boobu. le préfet dafa defoon benn arrêté man mii maa njëkkoon def arrêté sax bi kii bi amee ne rond bi 500 mètres chaque côté suñu fa bàyyiwul di def activité commerciale wala activité transport dina gën a doy waar yàlla def préfet tamit def benn arrêté bu mel noonu ñu koy appliqué commerçant yi dem ba ay jamono. ñu ne ñoom mesure yooyu arrangé wu leen boobu nag dañu tëjoon activité commerce yëpp mais ñu tijji activité <coughs> ñu tëjee activité commerce yi pardon bi ñu tëjee activité commerce yi yàlla def e, ñoom ñëpp ñuy ñuy jaay normal léegi nag bi ñu ambulant yi ñoom préfet ne arrêté bi ambulant moom bokk ci jaay ci mbedd wala ci trottoir walla ci mm, foo xam ne dañ koy tere mënul nekk mais tabaski jege bi tabaski jege ambulant yi nag rakkaaju bëgg jaay ñëw gis ma ne ma ah ñun dañu bëggoon ñu dimbale ñu ñu jaay ci trottoir bi nangam nangam ba tabaski bi jàll comme tabaski bi ngi ñëw ñun dañu wara liggéey ma ne leen da ngeen war a liggéey d'accord mais même mairie bi sax boo xoolee foire bi ñu daan def dañ ko ter dindi yóbbu ko ba excellence def ko fa kon mënuñu lu ñu tere mairie bi yéen nekkoo leen mairie ñu leen koy accordel kon dangeen ngeen di jéem a dem ci bayaal yi ngeen jëm fa jaay wala ngeen dem ci foire yi ngeen jëm fa jaay mais nag quant à voie publique bi loolu mënul nekk. ñu ne ok léegi ñoom danañ dem xool yi muy bayaal yi wala foire yi fu ñu mën a jaayee. ñu toog lu yàgg ñëwaatuñu man personnellement maa déplacé wu demal sama bopp ba ci ñoom li ma demee gis leen waxtaan ak ñoom ñu expliquante ñu ne ñoom léegi dinañ dem wetu excellence jaayi foofu loolu samedi la man mu nekk naa ñoom 15 heures ba 22 heures quatre artères yépp dox naa ko ak sama tànk di leen sensibiliser dimanche comme dimanche moom mairie du liggéey service minimum ñaari gendarme quelque agent bi ñu demee ñu commencé leen sànni ay xeer kon ce qui diir euh, waaw euh, euh, ambulance yi ce qui veut dire loolu mooy ñun li ngeen bëgg defuñu ko. commencé leen sànni ay xeer coow li commencé tension bi am man boobu maa ngi sama kër ci lañ ma woo. fan amee tension bi. si rond bi. léegi si lañ ma woo ne ah, fii de ambulance dañ ñëw ñu teeruñu di ñu sànni ay xeer ak ay affaire yooyu te ñun amuñu sécurité affaire yooyu ma woo commandant expliqué ma ne ko da ngay jéem a wut renfort parce que lii ma dégg nii. Eh, du jur jàmm commandant ne ne woote wax euh, wut renfort na wax ko le sous-préfet aussi ñu bàyyi noonu di dem di dem bàyyi booy replier replier dem ci ancien brigade bi agent yi foofu lañ tàmm di def seen siège bi ñu replier toog foofu dañ jékki-jékki rek ambulant yi def nañ seen benn groupe boo xam ne yor seeni xeer di leen tëb sànni ay xeer booy tëju si biir mënuñoo génn ñu leen ñuy dóor foofu ay xeer ba doyal gendarme ci non pas mairie bi ci. rond point bi foofu ci poste ancien post brigade bi. bi ñu paree lañ continuer di taal. def seen ñoom attaqué police yi. waaw gendarme yi daw ak ak parce que ñaari gendarme ci benn ful bi bon te renfort ñëwul. bon renfort xaw na tardé ñëw parce que bu teeloon na ñëw sax xëy na. du du du loolu du am. léegi nag ñu continuer seen progression di taal di dem ba mairie mais xam nga dimanche mairie kenn du fa ne. ñetti gardien fay ne bon gardien yi mairie yi xam nga ne sécuriser wu ñu ko du police koy garder du gendarmerie. Mm-hmm. lu nekkul police lekkul gendarmerie moom xam nga du mën a yor ay armes à feu di tirer wala civil mënul mm-hmm. téye mbooloo civil. Mm-hmm. donc ñooñu de daw ñu taal liñ bëgg a taal yépp dem mais loolu pour man affaire inconscience la rek parce que bu doon ne ñu xam dara lañ. mën nañ def lu leen neex taal nañu. turu taal la wala taal dëgg la. xam nga mën nañoo taal ñaari pneu ci bunt bi rek ñu ne taal. <laughs> est-ce que yow taal dëgg la. non taal dëgg la sax ndax xam nga lu tax taal dëgg la tey mairie ba batiment bi kenn mënu fa liggéey man mii bu depuis boobu laa gëj a xëy sama bureau keneen ku fa am bureau mënoo fa xëy ndax tey bu dee ne ci suuf bureau bureau enquête domaniale dafa tàkk ba jeex. ak mm, matériel ya fa nekk lépp amul ordinateur amul papier amul chaise bi waa ji doon toog amul table. lépp tàkk amul dara la lu amul lu fa des. bureau sociale bi nga xam ne depuis 1996 ba léegi nga xam ne moo fa nekk. lépp tout ce qui est tey noonu lañ ko taalee même chose du ordinateur du nangam ordinateur yi fa tànn daal nekk yu bees fekkuñu ko fa waaye yi nekk yu màgget ak noonu lañ ko booleeg table yeeg yépp taal dafa takk ba jeex. Euh, bureau parce que y' a trois bureaux y' bureau service technique bi nga xam ne ñoom ñoo gérer affaire ambulant yeeg yooyu même chose ñetti bureau yi dañoo tàkk ba jeex tàkk donc yeneen bureau yi nga xam ne peut-être ñoo nekk ci kaw muy bureau maire bureau directeur cabinet chef de cabinet secrétariat xam naa dañu ragal yéeg ci kaw boo yeggee ci kaw di yàq mën naa bu police ñëwee dajak yow foofu jàpp la moo tax jotuñu fa yéeg mais foofu tamit xam nga si suuf buy tàkk saxaar beeg yooyu foofu dafa ñuul kenn mënatu ko c'est kenn c'est impraticable tant que refairuñ tout le batiment donc aujourd'hui ñu ngi toxu comme amoon nañ beneen bâtiment boo xam ne bi may doog a falu si laa ko tabaxoon foofu à côté defoon ko mu am benn salle bu mag boo xam ne 200 personnes mën nañ fa réunir salle de délibération ak 6 ci kaw léegi bâtiment boobu ci suuf moom laa séparé euh, ay contre contreplaqué lañ ko séparé mu am 8 bureaux ci suuf léegi tout le batiment ñi fa nekkoon dañuy toxu si biir salle boobu en attendant que le ministre instruire na AGETIP AGETIP ñëw na xool na dégâts yi ak yooyu ne nañ dañuy def benn jël benn mesure d'urgence ñëw defaraat batiment bi le plus rapidement possible. la moo nekkoon sa réaction bi ñu ko taale waaw bi ko taalee mais mënuma ci am benn réaction du dul ñaawlu ko ak ñàkk ko rafetlu et puis tamit am ci mbetteel ndax xalaatoon naa ne ambulant yi ak ni ma demee ak ñoom relation yi ma am ak ni ma leen ubbilee sama bunt saa yu ñëwee mairie recevoir naa leen waxtaan ak ñoom. dama leen di fekk ci seen place di waxtaan ak ñoom ba samedi bi ma ñëw fekk leen fa de quinze heures à 22 heures ma ak ñoom amuñu benn xuloo amu fa coow amu fa quinze heures ba 22 heures kon donc dimanche bu ma ñëwee ñu ne taal nañ mairie bi loolu daf may bett et puis daf may jaaxal dama naan am nañu ci teg waaw teg nañ ci loxo une trentaine de personnes teg nañ leen ci loxo donc léegi enquête bi mi ngi continuer son cours bu léegi xëy na dañu xam ñoom lan moo tax ñu dem taal mairie bi initiative boobu lu tax ñu def ko Euh, xëy na man li ma jàpp na ma jàpp na ñàkk xam la rek parce que kenn du taal sa yëf parce que mairie bi ñoom ñoo ko moom. léegi la moo nekkoon réaction kuréel gi ëmb mairie Sénégal. waaw AMS euh, condamné na ko mais nag taxul teewul ñëw ñu fa de Aliou Sall moom ñëw fa gisuñu ko fa taxaw fa. topp ci moom xam naa ne timboo daal ñëw na fa le maire de la ville. le le mhm. département. Euh, du département maire du département ñëw na fa. mais AMS ñëwuñu fa ñëw. AMS fa mais liir naa seen benn. kon na communiqué. mais woowuñu la mm, bon jot ah mën naa am ñu woo ma bañ ma jot nag aussi. mën na nekk mais jotu mais woowuñu la mm, waaw mais daal en tout cas ba booba léegi wax ma ak ñoom. Mhm. mais na xam naa ne li gënoon na rafet mooy Aliou Sall kenn waru ko foon jiitu. parce que AMS c'est l'association des maire du Sénégal bu amee loo xam ne am na benn maire bu mu daal même bu ñëwul sax dafa rafetoon benn délégation ñëw ndax ministre ñëw na fa deux fois Omar Gueye eh, ànd ak gouverneur ànd ak préfet ànd ak sous-préfet ànd ak ñi mu war a àndal ñëpp ñëw fa loolu vraiment ñëpp rafetlu nañ ko Ablaye Timbo ñëw na fa ànd ak délégation en tant que de la ville de Pikine moom tamit ñëpp rafetlu woo daal li AMS waaw loolu rafetlu wuñ ko rafetlu wuñ ko parce que AMS ma fa njëkk d'accord léegi euh, monsieur le maire euh, Moustapha Mbengue comme ni nga ko waxee ni tey euh, xam nañ ne mairie Euh, boo fa taalee ay documents yoo xamante ni tey euh, taal fa ay ordinateur am na loo xamante ni tey euh, ci ordinateur yu ñu taal yoo xam ne yow mënoon nga fee mënoon nga see sukkandiku pour justifier foo dugal xaalis wala foo génnee xaalis tey bu ñu taalee yooyu ban gàllankoor la mën a indi ci ci ci liggéeyu mairie bi. non heureusement que ñun du fa indi gàllankoor yu bëri parce que ñun on a bien sécurisé notre état civil. Mm-hmm. xam nga mairie moom bu ñu ko taalee fii gën a am problème. mooy état civil wala secrétaire municipal. fi nga xam ne fa la bureau fa la dossier administratif yi nekk. loolu amul benn secrétaire municipal bi fañ ko def sori na atteindre ñu ko euh, état civil bi. Ah lépp c'est en fer lañ ko def. biir ak biti dañ ko sécuriser. en même temps aussi c'est informatisé ñun suñ euh, état civil ñu ngi ko informatisé jeexagul nag ñu ngi informatisé di dem mais donc foofu atteindre ñu ko comme atteindre ñu ko rek. Eh, problème mu document administratif pour population bi soxla kayit ak yooyu moom alhamdulilah rabbi alamin mais tey suñ taaloon état civil bi day garaaw parce que ñi war a def entrant sixième ñi war a def BFM ñi war a def bac ñëpp dañu am problème ak Kër Massar mais heureusement que loolu eh, eh, jëloon nañ ci ay mesures bu yàgg doon sóor lu mel noonu secrétariat municipal bi nga xam ne tey moo yore suñu fonctionnement budget manda décaissement nangam nangam boobu tamit aussi kenn laalu ko donc loolu euh, mi ngi fa. amul mais euh, est-ce que marchand ambulant yi ñoo ngi ci trottoir bi di jaay ba tey wala jóge nañ fa. non ñu ngi jaay ba tey marchand ambulant yi mënuñu fa jógee loolu état moo leen fa mën a jële man wax ne yàgg naa ko jooy jooy naa ko jooyati ko état moo leen fa mën a jëlee wala waa Kër Massar waa Kër Massar parce que Kër Massar tamit seetaan bi dafa bari parce que tey Kër Massar li fa nekk ci ay ay ASC. li fa nekk ci ay jeunes. li fa nekk ci leneen eh, ñooñu no si mën nañ ko parce que agent mairie yi suñu jógee ànd ak ñooñu ñu ne fii suñu dëkk la ambulant dootu fi jaayati mais Grand Yoff amoon na fi. Grand Yoff ci ci ci ci ci ci ci. mais foofu bu fa état tegoon ay policiers gendarme kenn du fa kenn du fa jaay mais bu ko état deful tamit ñu defal ko suñu bopp ñun bu ñu bëggee waa Kër Massar bu ñu bëggee ambulant dootul amati Kër masaar ambulant dootu fa am. mais tamit des fois seetaan bi day bari tey jii bari na ñu bari tey ay politiciens yoo xam ne dañ daan ñëw foofu di photo di ko yóbbu ci Facebook bi naan la maire est incompétent xoolal station bi ni mel nangam nangam tey bi ñu demee ba nga xam ne maire bi mu ngi xeex loolu di ko dindi ba ay problème tey am si ñooñu tey gisoo leen déggoo leen. dégg sa donc te ñooñu Kër Masar lañ dëkk. parce que foofu ah, Kër Masar solidarité bi dafa des dafa des dafa des. waaw parce que tey nit ñi bu ñu solidariser woon ak ak ak kii bi ak mairie bi ak agent yi ànd ak ñoom mais ambulants yi dofuñu dootuñu fa jaayati. Mhm. mais jusqu'à présent ñu ngi ko ne di jaay parce que xam nañ ne agent mairie yi kese ay civil lañ mënuñu xeex mënuñu xuloo dañu ñëw rek ne la señ bi fii dañ koy tere bu fi laal puusal soo bañee tamit bon dañuy dem woowi gendarme te gendarme yi yow xam nga ne Kër Massar sécurité bi doyul 15 gendarme pour 25 kilomètres carrés 140 quartiers mais nan lay sottee boo demee woo gendarme yi sax ñu ne la euh, dañoo am lu ñu jàpp fee nangam nangam bu ñu paree dinañ ñëw boo moytuwul balaa ñoo ñëw yàlla moo xam parce que sécurité bi doyul loolu tamit état bi dafa war a renforcer la gendarmerie yokkal leen ay éléments yu doy parce que comme tabax nañ brigade ba pare yaatu na mais nañ fa def éléments yu doy. waaw euh, monsieur maire lii nga wax nii tamit est-ce que fi nga ko war a eggalee est-ce que egg na fa maanaam ministre de l'intérieur yëg ko wala ministre des forces armées. ah waaw waaw bu baax a baax a baax ñoom ñëpp yegg nañ ko parce que bu yàggul rek sax dem naa fi ministre forces armées recevoir ma Sidiki Kaba. ba général bi tamit recevoir ma ba defaloon naa leen sa benn proposition ne nañu def sax ay post ndax Kër ma Massar comme dafa rëy fu mel ni Alaaji Paate ñu def fa benn post hmm? fu mel ni Buun ñu def fa benn poste fu mel ni Firdawsi ñu def fa benn post ba ñu dàkkawaroon ci ak man sax pour ñu am sécurité bu jege askan bi tey Alaaji Paate loué naa benn kër ba mettre ko à la disposition de la gendarmerie si ñoom la des pour ñu def fa ay élément pour mu nekk benn post boo xam ne bu dara xewee côté boobu Euh, brigade di ñëw parce que Kër Massar dafa yaatu 25 kilomètres carrés yombul. buun aussi la même chose ñu ngi wut logement pour luyel leen ko pour que ñu defaat fa beneen poste ak Firdawsi suñ ko amee yaakaar naa ne dina dina dina dina gën a tane mais boobu ba léegi tamit aussi bi ma luyee kër gi alaaj Patek léegi léegi mu mat 3 mois maa ngi koy fay chaque mois mais ba tey amagul élément. d'accord monsieur euh, su ma déggee ak euh, li ma si jàngat mo yow est ëpp la doole entre guillemets ci benn côté mooy solidarité ci askan wi dëkk Kër Massar euh, solidarité bi ñu war a am ak mairie bi des na beneen bi yow sa sa commune am na ci loo xamante ni sécurité publique la gouverne état bi ministre l'intérieur moom la war wala ministre des forces armées ñoom defuñu liggéey boobu noonu ndax ñàkk def liggéey boobu weesuwul ay marchand ay marchand ambulant ñu tere leen ci trottoir ñu mer dem lakk mairie suba ñu fekkaat leen fa te am na ci loo xamante ni mairie bi amul élément est-ce que yow entre guillemets mairie bi ak ni mu rëyee ñuy wax sax département est-ce que ëpp la doole. no ëpp doole maanaam euh, si nan lañ ko mën a waxee parce que mairie du doole moo koy gérer mairie yaakaar naa xel rek moo koy gere bopp bopp rek moo koy gérer. te mairie tamit dafa am nu muy doxee ndax dafa am ay compétences yu ñu transféré mairie bi maire bi. am ay compétence yoo xam ne ay compétence de l'état la donc maire compétence yi ñu ko transféré mi ngi koy doxal compétence yi nga xam ne tamit aussi c'est pour l'état plaidoyer bi ci war maire mi ngi koy def parce que plaidoyer mënul passé egg ci président de la république man yaakaar naa ne amul benn doléance Kër masaar boo xam ne tey waa Kër Massar ñi ngi koy jooy te jàkkaarlu maag président waxu ko te maa ngi ko ko waxee biir Kër Massar kon yaakaar naa kon foofu sama jaan wàcc na kon tey même bu dee ne sécurité Kër masaar dafa des kooku ci état la dese waaye maire moom plaidoyer bi mu ci waroon def def na ko ndax tey boo jëlee gendarmerie bi fi ñu ko tabax espace la ci suuf lañ ko tabax suuf bi maa ko joxe ñu tabax ko tey jii joxe naa espace boo xam ne ñu ngi fay deux cinq 2500 mètres carrés zone de recasement ñu ngi fay def police pareegul kon donc ñun li ñu war en tant que ñu ngi koy def. état bi tamit ma wax ne deful li ko war ndax ki ñëw tabaxal la brigade bëgg na nga am sécurité ki ñëwaat di la tabaxal commissariat bëgg na a am sécurité xëy na ñun dañ koy ñaax rek que mu gën a baral loxoom ndax Kër Massar ni nit ñi di màggee moo gaaw te état des fois ni muy doxee mooy xaw a yéex parce que nit ñi ni ñuy gaawee tey noonu la état war a gaawee ci li muy def ci ay Kër Massar ak yooyu parce que foofu démographie bi dafa galopante de trop donc loolu loolu moo fa am donc mënuñu wax vraiment ne. bëgg nañ nag département. d'accord mais bëgg nañ département mais danañ ñëw ci département bi monsieur le maire. danañ ñëw ci département bi mais xam nga tey yow euh, en tant que maire ak ñenn ñi ñoom ñoo xam ay compétences transférées ak nangam wala lii mooy rôle maire. Mm-hmm. peut-être yow di nga ci def explication mais léeg-léeg yow li lay dal sax. Mm-hmm. du yow kese lay dal ndax man gis naa fi gox yu bari yoo xam ne problème mu assainissement ba ay milliards et milliards la ñu jàpp ne maire ba moom ko war a def. c'est que Kër Massar bu ñu fa agressé woon kenn ñu ne maire bi la accusé ko maire bi te am na loo xamante ni sécurité publique la moo tax yéen maire yi est-ce que tey seeni compétence li nga xam ne mooy seen rôle est-ce que yéen a ngi koy leeral askan bi bu baax ak di leen leeralal li nga xamante ni tey lii état la war. waaw non ñu ngi koy leeral askan bi bu baax a baax mais tamit aussi askan bi am na si ñoo xam ne sax tamit nag. xam nañ de xam nañ carrément ne lii mooy compétence maire lii mooy compétence état ndax askan bi ñëpp rek nekk ñu ay nit ñi nga xam ne xamuñu dara eh, am na ñu nu ñun nekk ci suñuy askan ñun ñi di maire ñooñu ñoo ñu gën a xam sax lan mooy gestion collectivité territoriale bu baax a baax donc kon ñoom xam nañu am na si nag ñoo xam ne xamuñu mais ñu xamul tamit aussi dañ leen expliquer di leen xamal am na ñoo xam ne tamit aussi xam nañu. mais dañuy dañuy politique di réeral askan bi bu inondé ñu ne voilà xoolal maire bi def fi dara xoolal fii nu mu inondé xoolal fii nangam nangam ñooñu c'est les politiciens yi nga xam ne ñoom c'est de bonne guerre si seen rôle lañ nekk seen devoir lañ nekk et tout ça loolu am mënuñu ko bañ en tant que ay mais du tey ñun rek li ñu war a def rek ñu xam ko nekk si di ko def parce que man tey eh, dama ne Kër Massar 2014 ak Kër Massar 2020 bi ma koy jël en 2014 ak aujourd'hui am na une grande différence parce que tey vraiment am na lu bari loo xam ne tey mën nañu wax tey ne lii ñun ñoo ko fi yokk tey de 2014 à 2020 suivant les compétences yi nga xam ne tey ñu ngi am te nekkul luy ndaw nekk benn wala ñaar par par exemple tey su may joxe exemple mën naa la jox benn exemple rek sur l'éducation tey bi ñuy doog a ñëw Kër Massar di falu maire boo xoolee éducation bi tey li nga xam ne tey yokk nañ ko fa tey boo xoolee eh, exemple bi ma lay jox Kër Massar bi nga xam ne tey moo tax ñuy wax Kër Massar bi ma ñëwee falu maa ngi fekk boobu amul CM tey jii foyer des jeunes bi nekkoon foofu moom la modifié def ko benn CM boo xam ne ñeenti classe si si la fa nekk ci élève kan xamul nu mu toll dañuy xat-xat doo bi ma ñëwee nag li ma njëkk a wax ma ne il faut ñu def tous les moyens pour que ñu am CM yàlla dimbali ñu le projet ADM Dakar demandé ma ne su ñu amee un hectare cinquante dinañ ñu defar benn seem boo xam ne mooy seem bi gën a moderne ci Sénégal ñu wut un hectare cinquante jox leen keroog seem boobu président moo teg xeer bi tey moo tax tey seem bi pare na ba ñooñu génn nañu fi ñu nekkoon tey dem si seem boobu tey di fa di fa jàngee classe yi bari na parce que seem bi c'est en étage sur deux mètres sur sur sur euh, un sur. Euh, ah, niveau yëpp daal ma nga fa. niveau yëpp ma nga euh, ma nga fa ba sem ma nga fa mais salle yu bari étage la bon compté wu ah. nga dem Aliou Modi bi ma ñëwee Alaaji Paate li commencé Alaaji Paate Misira Satrak Grand Médine Alaaji Paate rek 19 quartier la seem amu fa. ma ne loolu mënul nekk il ñu def tous les moyens ñu am seem fii ñu waxtaan ak JICA JICA nañu ñu bu ñu leen joxee espace mën nañ ñu defaral foofu seem ñu xool ba am foofu benn espace ci après sotrak bi diggante Sotrac ak Alaaji Paate ñu def fa seem bi aujourd'hui tey seem bi am na njariñ bu baax a baax mi ngi fonctionnel fees del ñu jóge foofu ñu ñëw à Aynu Madi Aynu Madi amoon na benn maanaam nañ ko mën a waxee benn espace boo xam ne bloc administratif la mais boo xoolee tabax nañu école primaire bi tabax nañ lycée bi mais CEM bi moo desoon parce que bloc boobu tey su compléwee yow war nga fa mën a déparé yi ba terminal université mooy tax nga génn fa waaw mais CEM rek moo fa manqué boobu tamit aussi JICA bi ñu paree fële ñu ne ñu mën ñu defaral CEM boobu pour que bloc bi mu complet ñu defaral ñu sem bi ba tey am nañ bloc bu complet boo xam ne tey foofu mën nga fa dugg sëyi ba terminal dem université moo la fay moo la fay génne beneen bi si des muy seen école primaire bi fa nekkoon école primaire bi bokk na ci école yi gën a rëy ci Kër Massar ci nombre de classes ak ci élèves mais toilettes yi ay année amul toilette ñun biñ ñëwee fekk xale yi di génn di dem ci kër yeeg yooyu ñu ne lii c'est pas tey ñu defar fa ay bloc toilette ba kenn génnatul ci école bi di dem fenn ñu dem les Parcelles Assainies bi ñu demee Parcelles Assainies aussi et eh, Bonjour Afrique c'est nos partenaires il y avait l'école euh, unité 5 kenn clôturé wu ko woon xar yi béy yi fu nekk ils nous ont dit que mën nañu clôturer école bi ñu def partenariat ñu defal ñu clôture bi partenariat bi jaar yoon ñu ne ñoom am nañu benn projet benn bloc Euh, scientifique et technique bu dee am nañu espace ñun leen am nañu espace à l'unité ñoo tabaxal tabaxal ñu ko tey bloc technique euh, bloc scientifique boobu benn la ci département pekin élèves yi ñuy orienté yépp ñuy def série technique foofu lañ koy euh, ñëwee defee Kër Massar donc ñu defaat beneen sem au niveau de l'unité 9 ñu dem ci la Linguère abri provisoire bi may ñëw man di falu. fekk naa ko Kër Massar. non xaaral ma yegali xaaral xaaral ma yegali xaaral ma yegali parce que c'est important. éducation mooy base su abri provisoire dama ko fekk Kër Massar may ñëw maanaam mooy ay classes yoo xam ne ay sàkket lay doon ma ne abri provisoire zéro abri provisoire sama initiative la ñu ne abri provisoire yi alaaji paate la am ak la Linguère mhm. ñu dem alaaji paate ñu fekk muy benn salle de classe. keroog ma demee ma ne directeur bi lii dama bëgg mu dañ ma génnee ciment ñu indi ciment fer suuf lépp ñu ne nañu tabax abri provisoire bi boobu tabax nañ ko la Linguère trois salles de classe abri provisoire tey trois salles de classe yi actuellement ñi ngi ñi ngi peinture bu école di tijji trois salles de classe yi day fonctionnel kon Kër Massar léegi mi ngi toll ci zéro abri provisoire tey sur les bourses les élèves ak les étudiants yi ngay gis actuellement ñu ngi si deux mille cinq euh, cent trois mille deux cent cinquante cinq trois mille deux cent cinquante cinq bourses yoo xam ne mairie bi ñoo ko may des élèves ak des étudiants yi nga xam ne ñu ngi ci Kër Massar tey parce que ci rajo lay waxee ñi ngi may dégg te defuñu ko ci ay écoles yoo xam ne déedéet ay écoles yu am may parce que tey état ci boppam day jël ay étudiants am di leen yóbbu ISEC. mais boo demee ISEC fekk fa ay étudiants wu mairie Kër Massar. Iman en face université soo fa demee di nga fa fekk ay étudiants wu Kër Massar. élite santé soo fa demee di fa fekk ay étudiants. wu Kër ñaata euh, ba seen formation jeex su la mayee bourse. pour def sa formation am na ñoo xam ans am na ñoo xam ne 3 ans am na ñoo xam ne sax 5 ans surtout ñuy def santé ñoo gën a gudd. mais maa ngi commencé di am ay promotion yuy génn ñoo xam ne tey jii mairie Kër Massar tey moo leen. fayal tey ba nga xam ne pare nañ seen formation léegi monsieur maire bokk na ci éducation li ñu ci def. Euh, santé na mën naa ci dugg. waaw accord naa la dugal ci santé. d' accord dana ci ñëw ah, dana ci ñëw monsieur maire euh, waxtu wi li si des dafa bëriwuta noonu. Euh, Moustapha Mbengue la ñu invité maire bu Kër Massar ci rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot 15h jàpp 16h léegi conseil des ministres bi passé président Macky Sall dafa wax mbirum ñu nattal ko. yenn ci ay gox fu ci mel nii Kër Massar ngir ay infrastructure yoo xamante ni tey euh, bëgg nañ ko faa def yow en tant que maire tey boo doon sàkku ci état euh, te jàpp naa ne sax mooy li ma doon wax rek euh, maire dafa jege aw askanam ba nga xam ne tey waroon nañ sax di invité maire yépp bu doon benn weer wala six mois la toog ak président ñu wax ko seeni projet ndax yéen ko gën a xam sax ministre yi ñuy yabal wala ñeneen ñu ko yabal ah. léegi yéen tey boo doon sàkku ndax Kër Masar bokk na ci boo doon sàkku lu ñu fay def lan ak lan ak lan la. waaw je pense que xam nga loolu ñun maire euh, du toog ba heure bi muy doog a wax ne sama muy doog a xalaat ci commune am lu mu fa bëgg xam nga ñun mairie boo dem tey ñu si bëri bokk par exemple man am nañ suñu programme de développement communautaire mhm. boo xam ne ñun teg nañ ko au niveau de la commune boo xam ne. nee nañ programme bi Kër Massar lii moo fi war a am pour que mu nekk benn commune buy buy dund wala mu nekk benn département boo xam ne dafay dund programme développement boobu ñu ngi ko yore loolu yaakaar naa yomb na comme président dafa ne nañu dem xool yi defar ko ay proposition ñun ñu ngi leen di déglu yaakaar naa ne ñoom gën dina ñëw si ñun parce que gën ñoom mënuñu ñëw suñu commune dugg fa dañu defal ay programme mënuñu ko ñun la ñuy ñëw nañu seeni programme lan la su boobaa bu ñëwee ñu jël suñu programme suñuy programme tegal leen ko ne leen mi ngi nii tey ñun suñu programme yi nga xam ne def nañ ko au niveau de la commune de Kër Massar tey man je pense que avec 30 milliards tey on peut réaliser beaucoup de choses au niveau de la commune de Kër Massar sur des infrastructures de base des infrastructures sociaux de base parce que loolu mooy yor euh, dund commune parce que tey ñi comme ni ñu koy amee tendance di wax ne dañu war a nekk département mais département du da ngay toog nii rek si xel rek ne na nekk département mais département bi dafa am lu ko jiitu mooy lii tey président santaane tey ñun am nañ ay programme spécial yoo xam ne tey dama ne état daf ko waroon jël programme yooyu exécuté ko ci suñu biir communes yooyu parce que ñun ñoo nekk ay communes yu bees yoo xam ne tey population wu Dakar wala Sénégal yépp ñu ngi jëm si côté yooyu ñëw di fa dëkk si te nit bu amee fu mu dëkk dafa am luy tax mu mën a dund dund bu baax benn yoon ci la bokk nit fu mu dëkk dafa war am yoon demam ak dikkam di gaaw manqué na fa nit dafa fu mu dëkk dafa war a am ñun am nañ ay quartier wala ay euh, koñ yoo xam ne amul courant courant eggu fa. loolu waaw ci Kër Massar am nañu ay koñ yoo xam ne ndox eggu fa. eau potable bi mbëbës bii nga gis nga xam ne tey décharge bi dafa polluer nappe bi quartier yu bari yi sës si mbëbës amuñu ndox pompe bi ñuy naan ndox moom demal nga xool ku koy naan doo wér loolu du yoon. te chaque jour ñun ñu wax ko état daf ñu si war a jàppale quartier yu yëpp mu def fan ndox eau potable. am nay priorité daal waaw loolu mooy priorité yi dafa am ay priorité yoo xam ne état daf ko daf ñu war a déglu def ko. léegi nag comme joxe na ordre bi. ñun ñu ngi ko mais ordre boobu mën naa yàgg aussi liggéey la mën a jël temps. ah xëy na du jël temps xëy na ay programme d' la ndax comme génne na. 69 ah, ah, milliards ndox ki yoon. waaw léegi bu ñu génnee ci loolu mais ñu ñëw ci ay fajukaay ay poste de santé ay ay Euh, district mais am na ay poste de santé am na district. mais des na am na côté yoo xam ne poste de santé yi eggu fa côté mbëbës bi ma lay wax yépp amul poste de santé te ñoom ñi ngi nekk ci danger foofu dafa am poste de santé. mais maire bi war na tabax ay poste de santé. waaw ñun ñu ngi fay tabax benn léegi mu pare ñu ngi ñu ngi ñu raax côté zone de recasement euh, zone de recasement ñu ngi fay tabax benn poste de santé. ak euh, neuf salles de classe ak benn juma ak morgue. mais est ngeen système d'assainissement Kër Massar. des na projet bi dugg na def na genn wàll gi mais projet bi des na des na il faut président mu accélérer phase deux bi ndax phase 1 bi 1 milliard 600 la woon exécuté nañ ko ba pare côté yooyu moom sawaa mais des na yeneen côté yu gën a mën a am ndox. mais est-ce que Kër Massar am na système d'assainissement eau usée. non amagu ko boobu tamit ci la bokk donc li fa war daal dama ne ñoom bu ñu ñëwee dégluñu <laughs> li leen président wax. ñun li fa war. Ah, Kër Masar amul système d'assainissement. non amuñu eau usée euh, ndox mi dama na la benn côté la ñu am eau pluviale benn côté côté yi gën a taa muy Alaaji Paate di Daaru Rahman di di Parcelles Assainies Kër Masar Rufisque yi ak Parcelles Assainies Kër Masar Malika eh, ak euh, Aynu ba ci Sotrak Arafat Boun euh, Amdalaay foofu yëpp amul assainissement. eau hmm. pluviale day inondé inondation yu métti. tey jii kon bokk na ci seen projet. sant yàlla bi rek heure aujourd'hui kër euh, euh, Alaaji Paate am na kër yoo xam ne actuellement nii am na ndox boo demee seen borom génn am na ndox. Hmm. fii ñu toog nit di wax man ak yow. d'accord ak lenaat leneen loo xalaat tey bokk na ci seen mébét. ak ak ay équipement équipement tey euh, marchand ay centres commerciaux. tey ak ay marché Kër Massar marché ya fa yow mën nga ay partenaires mu tabax waaw loolu am na ay mais doyul xam nga superficie bi ngay xool xam nga Kër Massar du benn dëkk boo xam ne da ngay def benn centre commerciaux rek nga ne ça va. mën na jël population am nañu ay marché mais marché ci bëri tey c' est en état de délabrement très avancé marché dañoo yàqu parce que marché yi. nañ ko tabaxee woon bu njëkk baaxul marché yi boo xoolee presque. mais loolu liggéeyu mairie la nag. waaw liggéeyu mairie la mais liggéeyu mairie mais mairie tamit aussi état daf ko war a jàppale. Mm-hmm. tey marché yooyu tey par exemple tey le marché de Aynou Madi mm-hmm. mairie bi amul les moyens pour liggéey ko. Mm-hmm. peut-être ak ay partenaires mën na ko liggéey ñu ngi wut ah. ay partenaires pour liggéey ko mais euh, Kër Massar ak ni mu toll euh, est-ce que am na garage yu organisé. garage amuñu ko boo xoolee Kër Massar dugg bi mu jafe tey Kër Massar li fa gën a dox ñaar la mooy commerce ak transport. trafic bi dafa bari. waaw trafic bi parce que Kër Massar dafa nekk benn trait d'union entre Niayes bi ak Dakar. tey ñooy jóge ca kaw ay jandeer ay kayaar mboora ñàgg ñàkkurab Tiwaawan Pël ba jaxaay ba Rufisque dañuy ñëw ba Kër Masaar jàllale dem foofu mooy mooy mooy mooy carrefour bi oto yi jóge foofu foofu la ñuy yem ñeneen jëlaat relais bi jàll dem Dakar nag loolu foo mu am gaaru bu mag bu loolu fenn rek lañu gis ci Kër Masaar ne moo ko mën tey muy ci entrée bi foofu Njaga Njaay di gaare te foofu saa yow waxee ñu ne la forêt classée la forêt classée bi mënuñu ko déclassé mënuñu ko def ni mënuñu ko def naa te tey li gën a xatal Kër Massar ñàkk gaaru cer ci la bokk oto yi dañuy seet arrêt are bu oto war a taxaw di jël ñu def ko garage tey c'est des garages arrêt Kër Massar yëpp ay garage la oto tali bi day xat embouteillage guddi embouteillage bëccëg loolu c'est des problèmes yoo xam ne tey bu ñëwee danañ leen ko wax donc bëri na. lan ngeen mën lan ngeen prévoir pour bu dee jeunesse bi la. ah jeunesse bi stade tey jii boo xoolee la jeunesse amuñu stade amuñu ay centre de formation tey war nañ am ay centre de formation digne de yoo xam ne danañ former jeunesse bi tey ñu mën a ñi ñi am métier ñu mën leen former ñi nga xam ne tey dañu dañu dañu jàng ba génn tey war a def formation mën a def formation mën leen dimbale ñu mën a am emploi mën a am tamit fi ñu defee seen activité sportive parce que lu toll nii deux zones Kër Massar rek moo fi am deux zones te pourtant mën nañu ëpp deux zones sax ndax dañoo bloqué ASC yu bëri bañ ñu affilier ndax zone bi fees ñaari zones yi fees na mais tey bu ñu ubbi woon rek di affilier boo moytu ñu am cinq zones wala quatre zones donc kon te am na ñaari club yuy football championnat mais pour ñu football il faut ñu dem Mbaaw wala ñu dem Alassane Djigo du yoon dañu war a am stade digne de son ñun ñu ngi góorgóorlu man def naa mur de clôture. defar naa grille de protection actuellement maa ngi tabax benn tribune boo xam ne 20 mètres sur 10 la dina am ay vestiaires ci suuf ak ay toilettes dina am place VIP ci kaw mais loolu doyul. d'accord loolu doyul. d'accord léegi monsieur le maire euh, euh, yéen askan bi dëkk Kër saar ak yow maire bi da ngeen di faral di wax ne Kër saar dafa war a nekk département. Euh, fan ngeen ko teg. waaw fiiñ ko teg mooy ci ci taay bi lañ ko teg xam nga tey Kër Massar. ni mu rëyee su nekkoon département ci lay gën a yomb liggéey bu nekkoon département tey mu am par exemple quatre commune am seen maire de la ville tey kenn ku nekk di nga xam yow sa commune fan la yem di nga mën a gérer foofu di nga fa mën a liggéey plus le département parce que tey ñun Pikine moo ñu boot mais léeg-léeg di nga boot koo xam ne. yow mi ko boot sax da ngay xam ne ki nga boot at attanoo ko boo bëggee dox ak moom dem euh, distance sori mënoo ko foo jaar da nga koy wadal ci diggante bi. tey Kër Massar noonu la mel dans le département de te tey war na mën a nekk département boo xam ne sax day nekk département bu spécial maanaam dootul nekk département boo xam ne dañ naan Kër Massar département ndax Kër Massar buy nekk département ay Jaxaay ak Tivaouane yëpp mën nañ ci bokk mu nekk la grande banlieue parce que foofu bu nekkee département mooy ëpp département yi am ci dakaar yëpp ngay gis moo leen di gën a bëri nit bu ñu ko organisé dina ko organisé dina organisation bi mooy mu am ay euh, plan spécial de développement. parce que plan spécial de développement mooy dañuy xool ne fii kat bu nekkee département lan ak lan la war a am pour dund. Mhm. ñu ne ah war naa am gare routière war naa am stade war naa am ay marché war naa am ay yoon war naa am ay centre de formation war naa am ay lycée war naa am ay université war naa am ay ay ay ay hôpital war mhm. naa am war naa am lépp ñu def ko. suñ ko defee ba pare nag. war na sécurité aussi. waaw sécurité ak yëpp tout rek li mu war a am yëpp suñ ko waxee ba pare état daal di génnee ay moyen yu defar yooyu yëpp ba mu sotti. ñu dagg ko def ko département su boobaa day nekk département bu baax département buy dund. waaw mais monsieur le maire Kër Massar tamit dañuy wax ne amul sécurité ah. waaw sécurité wax nañ ko xam nga wax nañ ko sànq wax naa la la brigade bu am 15 éléments sur 25 kilomètres carrés xam nga. d' accord <laughs> sécurité bi manqué d' le maire euh, waxtu wi jot na euh, jeex na. léegi lan ngay tënk ci mébét bi état bi mébét pour ñëw Kër Massar ngir infrastructure lan moo ci nekk sa kàddu pour ñu tàggoo. waaw man loolu dama ciy sant bu baax la président de la république parce que tamit ku dul sant euh, nit doo sant yàlla ndax malgré Kër masaar rëy na waaye président mosu ñu bàyyi ginnaaw nag xëy na dafa joxewaat ay ndigal pour ñu gën a accélérer te accélération boobu. ñun moom lañ doon xaar ndax président tey indi na promobile ma nga Kër Massar di defar ay tali mais yéex na bëgg nañ lu gën a gaaw loolu indi na fa projet mi ngi canaliser waaye bëgg nañ lu gën a gaaw loolu accès universel à l'électricité ma nga fa donc lu bëri indi woon na ko fa ma ngi ko fay def infrastructure yi gis nañ ko mais programme bi mu wax dañu bëgg mu nekk programme boo xam ne nay nekk lu lu gaaw mu nekk mesure d'urgence ñi ko sant ñu ñëw waxtaan ak ñun ñun am nañ suñuy programme de développement yoo xam ne teg nañ ko ba pare budgétiser ko et tout ñu loolu la ñuy jël rek jox leen ko. loolu suñ ko réaliser rek je crois que mu problème bi day day jeex. jërëjëf monsieur le maire. jërëjëf euh, réew mi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon déglu pencum réew mi mu nekk euh, émission bi am ci rajo réew mi FM samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck. Euh, tey nag ñu invité woon euh, maire bu Kër Massar Moustapha Mbengue ñu koy sant bu baax di ko gërëm di ko jaajëfal euh, ci ñëw gi nga xamante ni ñëw na ko ci émission bi di jaajëfal ñu nekk Kër Massar ak ñëpp du ñu déglu Mamadou Diaw Diall moo nekkoon ci wàllu technique bi mbokk yi jërë ngeen jëf ba samedi bi di ñëw incha allah.